mi te ministère bi ñu dénk wàllum environnement dafa am direction bi nga xam ne mooy eaux et li nga xam ne mooy ay ngàndaay bu des sols ñooñu tamit dañu koy soxla ba ci parcs nationaux waaye nag li nga xam ne moo am ba moom kenn mënu ko cay génne bu ñu sukkandikoo ki nga xam ne mooy journaliste bii di Assane Sambo ndax nee na contrat la yoo xam ne maanaam lëndam na lool te am na benn laaj boo xam ne war nañu ko laaj mooy direction eaux et forêt ñoom xeetu ngàndaay yi ana lan la ñu koy doyee te nag ñëpp xam nañu ne fi nga xamante ni daal maanaam ñàkku kaaraange ga ma nga mel tuleeg mali armée nationale bu Sénégal moo ko daal di res te nag lu soxal wàllum surfacturation loole tamit xel tey na ci lool ndax dañoo jàpp mbir mi daal maanaam surfacturation am na ci te lu jëm ci wàllum corruption tamit kenn mënu ko caa daal di dàq situation bi nga xamante ni nag moo am ni ci lu jëm ci marché gré à gré quarante cinq milliards yi maanaam lim ñuy fàttali rek mooy contrat pétrole yi nga xam ne signé woon nañ ko fee bu ñu sukkandikoo ci Assane Samb ak Petro-Tim yéen ñu xëy fekk fa Cheikh Tidiane Dieye nee na nag dafa am loo xam ne askanu Sénégal war nañu koo xam bu ñu gëm lii nga xam ne moom la gouvernement bi di wax ndax gouvernement bi lii nga xam ne ñoo ngi koy wax ci lu jëm ci wàllum secret défense dara amu ci ma ne la du dëgg am na ci loo xam ne ay kàcc la ndax nag li nga xam ne mooy décret code des marchés publics dafa am lu leer loo xam ne moom la wax ci lu jëm ci wàllum secret défense secret défense nag bu ñu koy wax ci lu jëm ci wàllum marché ñi nga xam ne ñoom lañ teggil appel d'offre bi maanaam forces armées ak police nationale ak brigade des sapeurs pompiers ñooñee moom bu leen ñu jënd ay ngàndaay seen ginnaaw bandaga ndax ci biir décret bi amul benn yoon boo xam ne maanaam tudd nañ ci eaux et forêts kon nag bu ñu bëggee gëm loo waaw nan ñu eaux et forêts xaw ma secret défense loolee du dëgg ndax ci biir décret bi mën na la eaux et forêts nekku fa te li nga xam ne moo am ba des saal malversation scandale te nag lii mën na la gis nga gis nga lii maanaam mbir mu doy waar doy waar la waaye nag du ñu wax guleet ñi nga xam ne ñoo ànd ak Macky Sall yàgg nañoo def ay njombe ay détournement sàcc alalu askan wi dara du leen ci fekk Abdoul Mbaye nee na scandale munte weesu lii mën na la deeru Sénégal jamono ji yàqu na ci àdduna bi ginnaaw jëm daru Sénégal jamono ji ma nga yàqoo ci marché quarante cinq milliards gré à gré jëm ci wàllum arme yéen a kaay gii de libération nee na ku wax la sa des sa mën na la gis nga marché quarante cinq milliards bii doy na waar génne xeetu doy waar goo xam ne maara di tale danag moo ne gouvernement bu Sénégal ñoo ngi wax secret défense waaye yow secret défense boo xamante ni arme ya wax mën la ay vélo nga saak ay bus ay tracteur ay ambulance ak mën gis nga lii leeral mooy implication trafiquant nigérien bii nga xamante ni jamono ji ñoo koy wër mën a lay gis nga ki nga xamante ni moom lay état bu Sénégal jëflantee la ci lu jëm ci wàllum arme yi doomu Nigéria la te nag maanaam njombe gu rëy la def Nigéria moom mii ba jamono ji sax maanaam ñoo ngi koy wër lu toll ci soixante-seize milliards la daal di détourné ca Nigéria mandataire jamono ji moom la ñu daal di lal ci ak ndoddam kookee mën a la nit ku lëndam kookee di trafiquant ana nan la nag réewum Sénégal mën a jëflante ak mooma Abdoul Mbaye ne deru Sénégal kay moo yàqu ci àdduna bi yéen a kaay gi de libération na ko may mooy yeggale waaye nag li nga xam ne moo gën a doy waar ci contrat bi mën na nga gis nga gis nga arme yi benn prix boo xamante ni def nañ ko ci contrat bi lii nag maanaam kan moo ci mën a génnee surfacturation yéen a kaay gi de la vrai journal xëy duñu xibaar naan ñu gouvernement bu Sénégal ñoom jéem nañu si indi ay leeral waaye amuñu kenn ku ñu yay na la gis nga ñoom sax dañoo gën a dugal seen bopp yéen a kaay mi quotidien daal di wax ci marchand nga xam ne ñoo nekk ci marché HLM ñoom nag maire bu HLM da leen faa bëgg jëlee ñoom lànk nañ ba tëdd sa najwa di ko woon ak ci lu jëm ci wàllum concertation maanaam wàllum Sénégal jamono ji ñoo ngi ci jafe-jafe ndax nag subvention énergie bi bi ñu ko xaymaa toll na ci 700 milliards ñi nga xam ne nag ñooy waa FMI la ci Sénégal yaakaaroon de waaye nag ñoom dañoo lànk ba tëdd sa najwa ndax dañoo jàpp ne li nga xam ne nag moo gën a yéela mooy ciblé ñi nga xamante ni seen loxo jotul seen ginnaaw moo gën ñuy génn 700 milliards naan waaw xaw ma dañuy lu jëm ci wàllum énergie yéene kaay gi ba léegi pënd ba wureeku la coow laa ngi mel ni tulleeg màlle ni ki démb nag am na organisation société civile boo xam ne janoon nañu ak taskatu xabaar yi ñoom nag nee nañu Macky Sall na respecté li nga xam ne maanaam mooy constitution bi Macky Sall na respecté constitution bi waaye nag la respecté li nga xam ne mooy kàddooma te nag réew yi nga xamante ni ñoo tàkk dugg ci kaawo ci déndu Afrika mën na la nga force lu jëm ci wàllum ñetteelu mandat moo ko daal di état bu Sénégal teg journal bi sax ni mu ko tuddee mooy délinquance double XL te nag ñi nga xam na ñooy waa cour des comptes ñoom santaane nañ ba tey ñu topp nag ay directeur waaye nag ba léegi France dali xëy na mën na la gis nga agence yii njublang toppale gi nga xamante ni moo fa am mbambulaaga doy na waar yéen a kaay gi di direct news xëy di ñu xibaar naan ñu Macky Sall démb ma nga woon ca diwaanu Thiès ngir nag pose première pierre lu jëm ci wàllum Bokk Yaakaar ca diwaanu Thiès sagara ngay xeeña am na ñoo xam ne dañoo mer ba maara day taali dañoo ay leader ku ci mel ni Mbaye Jonn dafa boycotté Maodo Malick Mbaye dafa boycotté Aliou Sarr dafa boycotté Habib Niang dafa boycotté journal bi nag nee na li nga xam ne moo ko waral njort nañu ne organisation manifestation bi nga xam ne moom la ñu teg ci loxol Mamadou Lamine Massaly ak ki nga xam ne mooy Yankhoba Diattara loolee moo ko waral yéen a kaay gi xibaar nag naan ñu combat bi nga xam ne moom war a dox diggante Siteu ak Papa Sow jamono ji nag coow li bëri na si waaye nag est-ce que est-ce que Siteu dina xam ne moom la ko nees defee woon boobaak léegi toll na